waaye nag ñun dafa mel ni soldaar yu nekk ci guerre lañ amatuñu pour waaw wala amatuñu pour déet liñ soxlaal suñu ittee suñu yëngu ak sunu dal mooy li nga xam ne dafa dugg ci sunum réew te ñu gis lu muy def moo tax noo ngi gërëm bu baax monsieur le président de la république Macky Sall mm-hmm. ñoo ngi gërëm it maanaam ki nga xam ne mooy maire commune d' arrondissement kolobaan Fass Gueule Tapée ndax nag kaay set moom lislaam ko jëkk a digal ngor nangu na ko kon nag bu ñu xiiree ci affaire bu mel nii tey li nu gis ci biir marché Colobane li ñu fi génnee gunu mën naa la ne wa euh, jéggee gunu nu gàbbu au moins soixante dix soixante quinze pour cent ci li nga xam ne moom lañ fi jot a liggéey ci bi ñu xëyee ak léegi dépassé nañu plus de soixante quinze pour cent mais gis nañ loo xam ne maanaam sunu sunu dund ak sunu dal yëpp waral nanoo jaral tey nun li nu gis ci loo xam ne mën naa lor doomu aadama mu nekk ci biir marché bi ñuy dund ak moom te mësuñu koo xam bu affaire bii amuloon duñ ko xam te nag maintenant xam nañ ko lu visible la loo xam ne teg nañ sunu bët donc ñu ngi gën a ñaax nag ñi nga xam ne ñooy liggéey ci marché bi ñu xoolaat sunu comportement yedduma leen nag maanaam digaluma leen itam lu ñuy war a def waaye dafa am lu nu bokk loo xam ne dañ koo war a sauvegarder ñun ñëpp ndax marché bi leen am mooy sunu hôtel mooy sunu Paris mooy sunu feneen fii la ñuy daane sunu doole fii la ñuy jaamoo yàlla kon nag a ah, li pour gàttal daal noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp consigne bi ñëpp respecté nañ ko. Mm-hmm. maanaam lii ñu leen waxoon lépp def nañ ko waaye sant nañ leen gërëm neen a ah, bu ma bañ ta guddal daal dama naan jërë ngeen jëf yéen itam li ma leen di lancé daal ci message bu gàtt mooy feebar bi moom kenn ku ci nekk da nga war a mel ni soldat bu nekk ci guerre chaque citoyen sénégalais da danoo danoo engagé une guerre bu nga xam ne sant merci lañ ko war a jàppee ah amul li li nga xam ne autorités yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu santé li ñuy wax nan ko respecté nan ko respecté te nan ci xar suñu tànk tubay sëñ bi ñun bu ñuy bi ñu respecté loolu ak léegi dafa yàgg boo demee suñu toilette yi suñu jàkkee yi suñu lieu yi nga xam ne dañ fa doon dajale sax bien avant ñuy wax nañuy wàññi ñuy dajaloo quelque chose comme ça dañoo jëroon suñuy matukaay dañoo jëloon lépp loo xam ne lu lu ñu ne lii docteur yi dañ ne baax na ci fekk nañu di ko def kon nag daal message bu gàtt bu ma leen di wax daal mooy yàlla na suñu borom musal ci lii te musal ci bépp foo xam ne doomu aadamaa nga fay teg tànkam ci kaw suuf yàlla mi nga xam ne moo ñu ko teg yàlla na ko suñu borom teggil loolu daal laa leen di ñaanal di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal sama bopp surtout sama mbokki kolobaan yi nga xam ne nag def nañ lépp pour marché bi baax koo fi gis rek marché baax a tax mu jóg kon nag nañ takkuwaat te di di songandoo di xàcceendoo di dóorandoo bu nu ko defee rek dinañ ko convaincre te suñu borom jàpp naa ne yàlla rus na askanu Sénégal rus boo xam ne bu nu demee nag ba toog ba jàkkaarloog suñu borom nag ñaan ko ndax ak ñaan dong lan am nag maanaam ay chrétien fi nekk ak ay jullit ak ñeneen ñu gëm leneen loolu lépp nag kenn la ñu yaakaar mooy suñu borom tabaraka wa taala nag ñëpp jublu ci ñaan ko te bañ koo négliger bañ cee rëy bañ cee indi benn affaire nan ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne moo ko indi ci kaw suuf ak comme ko mën a jaar la ci loxoom rek suñu borom la soow mm-hmm. yàlla noonu ko yàlla teggil jaay rasulullah